Marème Diagne may présidente bi dafa am lu ñu jaral ñu jóg muy Amadou Ba président ki ñu booleek moom nag ba tey ji ñu mën a taxaw fii tey ji di wax di Habib Niang ñu def suñu ndogu woo suñuy membre ñu ñëw fekkee xam ni fi ñuy jëm ragaluñ ko am na fu ñu jóge waaye fa ñu jóge amul solo fi ñu jëm moo am solo muy jàppale président Amadou Ba ba jour dimanche minuit fekk ko palais ñu àndandoo nag ak Habib Niang mi nga xamante ni mi ngi ci di béy waaram ñu àndandoo ak ñoom ba mu dugal ñu biir palais. mala la Fatou Cissé la coordinatrice des femmes cadres de Thiès. sunu taxawaayu tey dañoo ñor. bu ngeen gisee tey femme yëpp takku ba dëgër ñu àndandoo ñun ñëpp ñu def ci weeru koor bi heure koor heure ndogu bi ñu ñëw taxaw fii di wax parce que li ñuy wax nii dañoo ñor. président Amadou Ba mooy leader bi nga xam ne moo gën ci Sénégal ñu ànd ceeg nag sunu frère Habib Niang nit ku baax ki nit ku social ki. nit ki nga xam ne dafa taxaw tipp fas yéenee jàppale jigéenu Thiès du ma ne femme cadre kese de jigéenu Thiès ak li ko wër moom la Habib Niang fas yéenee taxaw jàppale leen nit ki nga xam ne day def te du geesu nit ki nga xam ne day def te du du du xool barke yonent bi loolu la Habib Niang di def fii ci digg Thiès nag kon il est temps Thiès jeunes yi femmes yi ñëpp xam kan mooy Habib Niang fa fi ñu nekkoon nag. mooy ci la président Aly Ngouille Ndiaye ci la président Aly Ngouille Ndiaye la nekkoon ñu àndoon ci nag amoon ci doole lool waaye bu ñu demee dem a dem nag ba gisatuñ suñu bopp ci la président Aly Ngouille Ndiaye am nañu plein droit xool ki nga xam ni am nañ ci moom yaakaar am nañ ci moom nag wax dëgg yàlla ni kii bis bu jëlee réew mi ñun ñëpp dinañ nekk ci jàmm ak salaam fii ku la mayul jàmm ba ko mu dem jàmm mooy lépp ci àdduna mais ñun seen Sénégal gi ñu ko tojee yàq ko fu ñu jëm ca Senghor nag ba tey li fi am ci Macky sàll musu fee am autoroute apage péage musu am mu ngi fii doog a am terrain bii ñu bëgg a yàq leneen ak leneen ñu bugg koo yàq Sénégal di taal kayitu jàmbur yi mais lan la ñun ay sénégalais ñun duñu ay terroriste ay sénégalais lañu. li ñu xam mooy jàmm salaam fokk afree kër goo dem mel ni yéen a bokk ndey ak baay. C'est c'est la personne adéquate Amadou c'est le meilleur Amadou c'est un leader politique qui peut amener le Sénégal là où il y aura la paix là où il y aura la prospérité et donc nous avons décidé de rejoindre euh, pour combattre et gagner ces élections là Amadou moi je l'ai approché c'est un grand intellectuel qui a tout le potentiel, qui a toutes les capacités. Amoudouba, c'est une personne qui, a un cœur énorme, qui fait beaucoup de social, qui est très attentif. Aujourd'hui, si vous l'approchez, Batam il baisse la tête et vous écoute.